salaamaaleykum chers internautes yéen ñi nga xamante ni yéen a saxoo seetaan seen seen YouTube bi di Hann TV tey nag ñu ñëw ci seen émission bi di xam sa diine di jàngale lépp lu jëm ci eh, diine ñuy séentu nag weer bu mag di weerum koor ba tax na tey ñu dalal ci ki nga xamante ni moo di oustaz Mor nekk ci RFM waaye itam nekk ci euh, fële di TFM di jàngale lépp lu aaju ci suñu diine oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu waa Hann TV ak waa mbokk internet yi nuy seetaan ci àdduna bi yépp ñu ngi leen di fay di ñaan yàlla jàmmam yàlla na sotteeku ci suñu kaw. allahuma amin incha allah ñu bokk ko oustaz ñu jëm ci li nga xamante ni moo di weerum koor ñuy laaj lan moo waral weeru koor. naka lañ koy préparer jullit bi naka lay def bu weeru koor jotee ñu jëm ñu préparation bi naka la jullit bi war a taxawee gëm ni jëm na ci weeru koor. Euh, tabaarakallah macha allah xam nga yàlla xéewal yi mu xéewal jaam yàlla bëggul jaam nekk ku tuuti dafa bëgg nit ki muy màgg suy màgg di màgg ci yëg-yëg. mais màgg ci yëg-yëg li ci gën neex mooy yëg yàlla li ci gën neex mooy bëgg yàlla li ci gën neex mooy teqali ko ak seytaan moo tax sunu boroom ci mbaaxam mu indil ñu jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi aussi ay période la ko yàlla di joxe gis nga boo dee dox ci àll bi nii di ngay gis fruit bu nga xam ne période sàngam rek lay génn euh, yàlla koor mu jox nu ko wutal ko benn date bu mu ko jox yonent bi yonent bi nekk na ci Médine astafurlah ci Makka lu ëpp dix ans di wax kaay leen jaamu yàlla ba mu yàgg mu wax ne kaay leen julli mais bi mu demee bi Médine si la deuxième année ci Médine wala troisième année ci la yàlla doog wax ne woor leen mais bien avant daan nañu woor daan nañu woor sooy parcourir la Coran. di nga gis ni Moïse yonentu yàlla Moussa alayhi salaatu avant que yàlla di jox les dix commandements sunu boroom sant na ko ne ko wooral ma trente jours mu woor trente jours mu ñëw bëgg a jël yàlla ne ko demal nga dolli dix jours gis nga. mu dem woor 40 jours pour ñëw war a jot les dix commandement alors loolu moo ñëwaat ci yàlla ku mu bëgg sant dara am na nu la koy sante mais yooyu ay santaane la woon bokkul ak ñun mais ñun chaque année ñu woor 30 jours ñun ummatu muhammad rek la ko yàlla defal alayhi salaatu wasalaam la ko yàlla defal mu nekk sunu teraanga moo tax suy bëgga ñëw da koy waajal nan nga koy waajale da nga koy waajal ci xel li ngay jëkk jàpp ci sa xel mooy yàlla teguma lii pour toroxal ma parfois di nga gis naa les réseaux sociaux ñuy envoyante ay message di wax naan ki indi tabaski moo gën ki indi koor or fekk ne dañoo comprendrewul gis nga tabaski ki ko indi yàlla dafa am lu muy jàngale yàlla mooy wane moom mooy seet lu ko neex mu tegal ko nit moo tax mu ne papa bu jur doomam bu tudd Ibrahima mu jur doomam bu wax Ismaïla booy seet sadik soxor foofu la mën yam ki jël sa doom jur ko jël paaka pour mu rendi ko xam nga loolu lu metti la mais yàlla xam na ni paaka bi du dagg parce que paaka bi ndigal rek lay déglu moo tax yàlla ni ko bul dagg mu teg paaka bi dagg dagg dagg daggul yàlla ndigal bi rek la ci soxla defal nga def rek la ci soxla moo tax koor suy ñëw dangay ngay wu psychologiquement wane ni maa ngi bëgg dugg ci jaamu yàlla boo xam ne yàlla ma ko sant jaamu yàlla bi dafa nekk luy waajal beneen jaamu yàlla bu tolloog moom niveau muy jaamu yàlla ak màkk kuy dem màkk dañ lay tere xuloo dañ lay tere xeex dañ lay téré werante dañ lay téré laal loo moomul dañ lay téré lekk lu lewul dañ lay téré dañ lay téré dañ lay téré mois d'apprentissage pour def apprentissage ci koor ci aj màkka loolu moo tax yàlla jox jour préparation psychologique mais en même temps préparation physique pour une def benn trente jours bon nga xamante ni bii jamais ak ton Seigneur moo tax séentu bi ñu dañ koy xaar mu ngi ñëw mu ngi ñëw mu ngi ñëw ba ñu ne weer bi feeñ na ci buñ nee weer bi feeñ rek nga dugal sa intention lu am solo parce que jaamu yàlla yépp ci intention la tegu innamal amalu binniyaati jaamu yàlla yépp ci intention la tegu nga yéene ni fas yéene naa weeru koor bi yépp ma woor ko ce yaa koy wax ci Goudi avant un set di jot avant fajar di jot jeex yene nga nga commencé que di wor lan moy wor wor moy abstention nit ku abstenir alors baatu kor yalla tudd ko ci alquran Maryama alayhi salam moy yaayu Isa. jour bi mu demee génn ñëw indi doom te gisuñu mu ëmb sunu borom daf ko wax ne ko boo demee ku la wax ne ko dama woor muy baat bu am solo dama woor mooy ndekete boo wooree doo wax wax bu bëri bu amul njariñ doo xool lu amul njariñ doo déglu lu amul njariñ doo dem fu amul njariñ ndekete loolu moy abstention bi abstenir bi nga absteniru ci dara moy al insak moo ñiko teunk ci bu fajar joté ba jant bi so ñoñu lañuy tuddé corps primaire ñoñu ño wor corps primaire moy bu fajar joté dotuma lek dotuma nan mais duñu lek mburu duñu lek ciép mais am na leneen lu ñuy lekk xam nga lan la ñuy lekk deru gor. deru gor maanaam dañuy jëw dañuy fen dañuy rambaaj dañuy tappale dañuy triande xam nga kooku lekk bi rek la bàyyi kooku mooy kooru primaire mais ki nga xam ni moo woor wooru universitaire kooku la ñuy wax ne mooy idal maru saama anil xataaya moy ko xam lepp lu ñaaw du ci hall, gemmiñam du ko xol du ko deklu du fa dem koku dañu wax ne même bu tombeewul wala période wéru koor koku ñu ngi koy bindal tuyaaba ku wor même bu nekkul wéru koor kon gis nga wor moy té sa bop do lek do nan bu fajar joté ba jant bi so mais do ca yam da ngay bàyyi wax loo warul wax def loo warul wax moo tax sunu borom mu ni jour yu barewul la trente jours rek la gën jaa bari jour rek la kan moo war a woor nag mooy ku nekk koo xam ne bi nga juddoo weeru koor fekk na la fi nga majeur wir voyagé wulo j'ai bien dit wir voyagé wuloo léegi nag kooku moo war a woor mais am na koo xamante ni kay nee nañ ko mun nga changer jour yi woor ko yeneen jour mooy ku nga xam ne am na ay contraintes par exemple jëmb gay dafa accouché doomam mënagul a lekk su wooree moom du am soow doomam du am lu mu nàmp te doom bi day continuer di jooy moom ñu ne ko échangel jour yi nga waroon woor bàyyil ba weeru koor bi jeex nga joxe nourriture jàmbur nga dundal ko muy nàmp di nàmp di nàmp di nàmp nga gis ni lislaam fonke bakkan muy nàmp nàmp nàmp nàmp nàmp ba mu am 4 mois 5 mois tombé génn nañ weeru koor bi mu am lu mu mën lekk yow nga continuer doog a fay sa bor pourquoi yàlla wax ni nga fay moo ko gënal nga joxe lekk bi parce que koor dafa am lu muy dugal ci doomu aadama doomu aadama bi fekk mu ngi lekk fekk mu ngi naan ay toxique ñu ngi dugg ci yaram bi cholestérol yi fii leneen leneen fii suukar bu ëpp bi fii xorom bu bi fii mais boo dee woor daf koy niwale donc moo tax yàlla wax ni wa an mu xayru mën nga gis benn fuqaaw mu ne la comme yaa ngi nàmpal mën nga joxe lekk rek bul woor dëgg la mën nga ko mais defoo li gën lan mo gën moy bu sa dom mané lek nga dem wor pour nga nettoyer sa yaram yoy ci nek en même temps sikko yeen jukko yi nga xamné dang ko don def jëw yi rambaaj yi fen yi tapale yi loolu mu dal di génn gis nga kon ki war wor moy un croyant musulman bu nga xamanteni bi majeur na wul febarul amul ngant kok mo war wor tay ji man budé dama nek mak

ma joxe lek mais bu dee mënuma wor ci moment bi weeru koor bi nek ni mais bu weeru koor bi jeexee dina mën fay su boba wor bi mi ngi sama loos jërëjëf oustaz comme euh, niñ ko euh, gisee rek oustaz tontu na ci li nga xamanteni moy euh, wor lan motax ñuy sentu weeru koor tontu na ci origine koor fan la tontu na ci kan mo war wor tontu na ci tamit jeexintalu koor naka lay def ci nit ki gis nañu sur le plan sanitaire koor euh, am na la nga xamante ni da koy def ci sa yaram da koy psychologiquement aussi gis nañ koor la nga xam da koy régler ci sa euh, ci sa ci sa xel ci sa nekkin aussi oustaz Mor ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la remercier ci sa te gis nañu xat nga mais bàyyi nga sa temps bi yëpp euh, jox ñu ko ñu lay jaajëfal di la jox rek dig daje beneen séquence ci weeru koor